Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici quelques flashs d'informations présentés par Cheikh Sarko. Le chef de l'État Macky Sall a décidé de décréter un deuil national ce jeudi sur l'ensemble du territoire national pour marquer euh, les illustres disparus qui ont perdu la vie durant les manifestations de ces derniers jours qui a endeuillé le pays. Il y aura des recueils Euh, et des prières formulées à tous ces Sénégalais qui ont perdu la vie durant euh, ces manifestations de la euh, semaine dernière. Les drapeaux seront en berne partout sur l'ensemble du territoire national. Restons toujours sur la politique. Le leader du PASTEF, après avoir été auditionné par la justice, Ousmane Sonko s'est rendu ce matin euh, au domicile, au siège euh, du mouvement Yanamar pour le remercier de leur présence durant toute cette lutte. Euh, Ousmane Sonko est en train de rencontrer les, euh, les responsables du groupe Yanamar pour leur témoigner leur confiance totale et indéfectible. Restons plus dans l'actualité nationale, les pétroliers étaient en conférence de presse hier. Ils ont condamné et fustigé euh, toutes les stations qui ont été dévastées par les manifestants. 70 euh, stations euh, totales ont été euh, envahies par les manifestants. C'est des milliards qu'ils ont perdus. Ils ont rencontré hier le ministre chargé du pétrole et du gaz a promis de les soutenir financièrement et logistiquement. Restons toujours sur l'actualité nationale. Les syndicats ont également condamné et fustigé les sites d'arrestation et les actes de vandalisme et du banditisme euh, qui ont orchestré le pays euh, ces derniers jours. Euh, bilan, 10 personnes ont la, mort et des dizaines de blessés. Partout, les Sénégalais ont fustigé ces séries d'actes de violence et de vandalisme. sur l'international, en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé hier en, Allemagne suite d'un cancer est âgé de 56 ans. Ahmed Bakayoko avait remplacé l'ancien Premier ministre euh, Guy, l'ancien Premier ministre ivoirien également décédé euh, euh, euh, à Paris. Restons en Libye. Le Parlement finalement adopté le nouvel gouvernement dirigé Mesdames et messieurs, tout de suite, la version Wolof. mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk ko si kàllaama Kocc Barma euh, ki nga xam nag mooy njiitu réew mi le président Macky tey dafa fas yéene Sénégal yi nga xam ne ñàkk seen bakkan euh, si manifestation yooyu li nga xam ne li ñuy woowee deuil national benn dëj boo xam ni dañ koy jëmale si. Euh, Sénégal bi ngi samp ne leen prix njiitu réew mi ne ñu samp drapeau yi di ñaanal ñi fi jóge mooy fukki doomu aadama xam ni ñàkk nañu seen bakkan si manifestation yooyu euh, di wax ni Sénégalais yi dañ leen ñaanal yàlla xaral leen àjjana. li jëm si mbirum euh, xibaar Ousmane Sonko bi nga xam ne mooy jiite Pastef jamono yi ñu ay tournée fële ca Parcelles Assainies mi ngi waxtaan ak waa Yanamar mu leen di sargal leen gërëm ginnaaw bi ñu ko taxawee. si station boobu jëmale ko si mbirum justice. li jëm si mbirum euh, xibaar ñi nga xam nag ñoom ñu yëngu si mbirum pétrole ngi ñaw ñi ngi ñaw bu baax euh, juróom-ñaar fukk ak euh, station Total yoo xam ni dañ leen toj yàq xam nag mooy. ministère bi ñu def mbirum pétrole de gaz ne ne leen taxawu lu mu gën a gaawee fële ca Côte d'Ivoire ki doon jiite ki fi nekkoon premier ministre di Ahmed Bakayoko moom nag génn naa dund mais man juróom fukki at ak juróom-benn mu dafa feebaroon dafa amoon cancer am mooy président Alassane Dramane Ouattara moom moo ko euh, annoncé askan bi euh, fële ci Libye euh, gouvernement bu ñuy wax de transition bu Libye parlement bi nag validé na ko nag ñoom ñoo fas nag gunge gouvernement bu Libye mois de décembre bii ñëw mbokk yi ñu woon say xibaar si kàllaama Kocc Barma ñu leen di leen sant.